ki nga xam ne mooy chef professeur docteur alhaji yahya ejeje jame ntol mo bundung bohol bijanker faro fondinkewol le ñoom waa bundum bohol bijanker eh, youth organisation mbootaay lañ tumando KMC nkol mun na nekk waa KMC ni wole ñoo kalamuta jam politique o to baakel na ñooñu si mbiri politique fii bari jannin be naaloto domandi bala moo ñëw si boobu UDP la loo anim DTM mu ne UDP bu mu taxawee ak tey kabrin 1996 mu ne since 1996 fokanaa bula la ñëw be 2006 nga xam naa le Ousseynou Daabo je daaw dandi mu ne foog na ne foo leen gisi Ousseynou Daabo alkam Moriba Suso jiyele li ngeen dee gis Moriba Suso Ali Halifa Salla je dawdandi fo len gisee Halifa Salla alkam Moriba Suso jawdol di ngeen di gis Moriba Suso fo muy mom bar his excellency mune wa his excellency bundum bool fondinkeol ko nga foye ko mune ndaw bundum bool ñu ñu wala ne e koy si même foloke luñ jeka def moy wolam ke hakko dani ndaa ñu bal ahasiyo si yow ki hakkoo fa signa saba be ñetti yon ñu la baalal aha nga na wato beke opposition ya ko nole ñom dañ def seen watu yeb ci mbirib opposition adun tumando wato dalila kante te amul ben rising bo xamne def nañ seen watu yeb opposition ya mu kuleti mu ne mbiri opposition yefi la bo xamne ni mante hakela hasidiya e kala bangol so demul sahel bu yaga da nga nekani ku hasidi ku añaan His Excellency Sandoso Tata. His Excellency Mune Amna Adbu Am. Jiba Keta. Tauburei Amna. Ida fong na telefon na bundum bijangker brijodo. Yo nyonga be bundum bijangker si brijbi. Ndani na nyim Funding keol. Moman dawam yi. Kabri nga kalamuta koy kana aje. Buñ yegne yang Fanyo, ndara si kordala kono nganna barara mo lambe ataya la den duga bir keri tal furno ñu ataya ko hanila la bendu ndirom la fi ka mabe bul teru la fa feke yàlla wo haasidi yaaltide mu ne loolu haasidi ak añaan bu doy la ni wote ni bankoo alpha wulta bu dul loolu kilifa réew mi si jógee ay ay mool la suuloo soto mu am joti nit ñi sama be keekan mu nge taw afan ka taa jiibee moo sama ka tiñaaroo ke merli mu jóg boppam dem seet nawet bi taw bi ban façon yàqute lay def ni ntol dammaŋol siita karalan kon titaawo bendun na yéen soo leen toogee asaan ngeen ne doo ko teeru oto ni sama doo naata ko rek beneen taw su ñëwee ben sambalal woyo bi dina leen yóbbu bundum bijankeer bundum faro konon kol foye ko bundum bijankeer waa bundum faro konon ñu mu wax i ko yee fankara feema bi denkana seen boppa tey yee fankara feema saama denkana seen boppa elek adu yee fankara feema fo faw dégg na seen boppam fa faw opposition on doon la kuuma la jàng mu ne opposition du ko laal fii because ñi manqué opposition bent te lii du mbootaay du ndajo opposition banko alpha wulta kilifa réew mi moo jóg katata man tamanka la dimbayal je dem gis waa gisante ñoom ani ka kaca mu waxtaan ñoom akee la suulool long mu am seen tawat akee jaara mu ngi leen a faj aka mel jarano lodulato lumle na fas ci sase naata men jarano la lodulato ku munta fas ci sase aka foyle mbake la mune la dina ko defal anu ya sale singala koy tawota i e bake la te ex your excellency lo dig rek dang koy def ntol mbatata mbatata mbatata mu ñun soo nanañ soo nanañ soo nanañ faro kono bi ni sama keta mu ne faro kono su tawee honorable jata euh, yafo jang honorable fabaka tombo jata wax na ko ako laati kunda silo men fowe mu ne laati kunda yoon bu mu la doon wax noonu ay ndolle la koomoo fara yoon bu demee fu laji juma fele seen gannaaw la fa suukuta be suukuta ni sama kete ñala je su tawee foofu sa kanam musol bi jande wol sin seede ano jigéen ñi ak fii mun nañ ko seede e to lekata marché wol ñoom ñoo dee dem marché tuman am na yena waktu ke kana do lekata lo pongo dol dato ay gol yu dëgër ndaw yi ñoo dee dem taxaw si bunti pom bi ikam wol bamp ke tendi jiol di boot nit ñi di leen jàllale foofu pour yedee loo haajol toppatoo noonu ndaa ñu dem toppatoo seen soxla boobu Mr. President. Mr. President. ni a yangonte la kumoo fo la soo gisee mu ne du n mbiri opposition mbe laahid la ñin na ko ñu la eh, eh, digal lii Serakunda Central. Serakunda Central. Honorable Seni Jaita wayalo nede. Honorable Seni Jaita hamna. Kuta kere amamben kata. Amullo hamne gorgorlu ko. Pour kanto samba nan. Pour mu indi len ñom APRC. Amano. Munuko. Jannate kana. Bala mom mu ñew. Allah nominate député Abdoulaye Sagnang. Abdoulaye Sagnang. Buba Senghor ñol. Mu ñom Buba Senghor. Wato wat. wattu bu nekk nin karte fayo sita susani karta jote ibe ka fo ko moriba suso na la fondinke wolam na problème oti bohol ñepp lu ñoo joy moy moriba suso ak ndawam ñoy problème am ci bohol bar mbe lay la ñin na ko wa ñu la digne kabo bila jël tey wakata thing of the past lati loolu du Musa amati jeena nte na time waste la opposition nooma koteke du Musa waste seen time si mbiri opposition adu yamari la te mu ngi jóg benn yóbbante si opposition si. man du la dool fa de. waxuma yenn place yi de. bar Serekunda central. Serekunda central. mbokele nogo aerial. nogo aerial mbokele wolete. wala mu opposition wol de. wala mu ntol la kumoo de. wala muy la ku mooy seen kaddu. nten na kumoo kum faanoo la o ñaama. du mun na tëj mu kaddu am noonu. Serekunda central compa euh, seen campagne committee. la muy di de. mu ne ñooñu gaynde ngaran ko ila lord mayo hamna ne sen lord mayo giso men bebe la dindingol la e eh, hale hol buñ amé atale ya duyto mo len ko dugal bodu nyaay jang modu nyaay mu ngi fi honorable babu sonko bi jang babu gay sonko mu ngi fi modu nyaay en samba babu gay sonko ya lumenna modu nyaay bu mu len yobu ci babu gay sonko pour kay tan dal ko modu nyaay mu dogu lalti pour wone la Modou Njie liggéeykat la babuge sonko yaɓe fo talindin faro kono babuge kenan mu ngi ɓe faro talindin bante naate ka taman singol la ntata babuge ya Modou Njie bulatan nema fo ɓundum faro kono kata fondinkewol mit mu ne dañ do seen tànka ba ci delloo ba sa bundum faro kono ci mit yi ndaw yi niñ jeyro fula njambi je ne su fekkee ne problème mu fa niñ jeyro fula njambi je su fekkee ne yin alaji yusufa bitey men lori ala yusufa bitey ɓe tahaw ayala kato dama belek